mu nekk waxtaan boo xamante ne bu am solo boo xamante ne police sumb na ko ci bés bi tey ñu tuddee ko les mercredis de la police ñu am thème bu am solo boo xamante ne moom la ñu waxtaanee muy gouvernance sécuritaire et l'approche collaborative de la sécurité maanaam ban taxawaay la ñu war a mën a taxaw jamono ji ci wàllu kaaraange ak nan lañ ko war a mën a def ngir ñëpp ñoo xamante ne askan wi ak police ñu daal ci taxaw ngir kaaraange bi mu gën a yokku saa su ne. ak fu nit mën a nekk ci waxtaan boobu kii di sociologue bi Jibi Jaxate moom nee na faw dèjà ci biir askan wi mu am beneen taxawaay bu am solo boo xamante ne nit ñi war nañ ko taxam maanaam fexe ba impliqué ñi nga xamante ne ñooy délégué de quartier yi président ASC e ak bajenu gox yi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi foofu rawatina imaam yi ci taxawaay bi nga xamante ne war nañ ko taxaw ngir mën a jàppale police ci liggéey bi waaye tamit ci dooleel kaaraange bi ci gox yi goxaan yi. li nga xamante ne tamit dellu si na tamit ci waxtaan yi mooy boo demee ci commissariat yi nan lañu lay dalale waaye tamit déglu la orienté la ci lépp loo xamante ne mooy sa jafe-jafe. mel ni ci yooyu la ñuy ñaax policiers yi ñu gën ci farlu bu baax a baax ndax rapport yooyu buñ ko amélioré bu baax a baax dina tax askan wi gën a ñeme police waaye tamit gën a am taxawaay boo xamante ne mën na ko dimbale ci wàllu liggéey. yeneen panélistes yi tamit dellu si nañ tamit di wax nan la police léegi di gën a taxaw jamono bi nga xamante ne. askan wi war nañ ko boole ci wàllu kaaraange police dafa war a am beneen taxawaay boo xamante ne daf ci war a taxaw ngir mën a boole askan wi waaye tamit fexe ba di koy déglu saa su ne pour mu mën a tamit intervenir ci li nga xamante ne mooy kaaraange bi. mu doon waxtaan bu am solo boo xamante ne directeur général de la police mu ngi koy rafetlu bu baax a baax. amoon na sociologue amoon na ay commissaire de police amoon na ay ay ay professeur d'université. amoon na ay militaire ay gendarme ay douanier ay pénitencier ku ci nekk nga wax li nga xamante ne yow mooy si sa gis-gis ñu weccoo laajante xalaat sottante xalaat ba ñu xam ne gis nañ ne lii nga xamante ne moo ñu fi indi woon tey jàng nañ ci lu bëri te jëlee nañ fa lu bari loo xam ne wax dëgg yàlla ci suñu liggéey ëllëg suñu def dinañ ko ci boole dugal ko ci suñu action ba nga xamante ne suñu jëflante ak population bi suñ jëflante ak nit ñi nga xamante ne ñun ñoo leen war a jox sécurité gën a yemb et gën a yomb te gën a baax. inspecteur général Mame Seydou duur tamit mu ngi dellu si tamit di wax li nga xamante ne mooy waxtaan yi dinañ ko wéyal saa su ne ngir ñu gën a xam li nga xamante ne mooy jafe-jafe askan wi. àllarba yooyu mbir moo xam ne la dañ koy continuer mosoon na fi daan am ñu tax arrêté woon ko waaye ñun dañoo décider ne si suñ magistère maanaam période bi nga xamante ne dañuy jiite police incha allahu dinañ ko jéem a dekkalaat parce que dafa amoon njëriñ ci la ñuy waxtaan ak population yi la ñuy waxtaan ak nit ñi parce que dañuy soxla dégg li ñuy nit ñi di wax soxla aussi ñun aussi nit ñi di ñu dégg communication boobu dafa war a am suñu diggante conférence bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee mercredi de la police ñu ko organisé waa direction de la formation bu police nationale moom lim ci jublu indi ay thèmes yu am solo di koy waxtaanee ngir polise mën ci am njëriñ waaye tamit askan wi am ci njëriñ bu baax a baax. ko Mbacke Kadior TV di intérêt askan wi soxlaa leen yittee leen ba pare di leen jaamu chaque ak rawatina actualité yi xew ci Touba Mbacke mu leen koy wan en direct da duñ ci dagg dara xibaar yu wér te wóor rawatina fépp ci réew mi ak actualité ak bépp xew-xewun man di am moo tax nu naa 300000 abonnés mën a réew mépp la yitteel mbokk yi am na site YouTube nanu abonné partagé aimé nu abonneel ko aimé partagé teg ci ndax yitte askan wi képp la Mbacke Kadior TV yemul foofu day